أخرجت قصائدي قلوب الحملات لنفسي وهي بسر للكملات هاجت قصائدي قلوب الحملات للعرش وهي بسر للكملات إذا كتبت فزع عرش الملك وارتزع بتسبيح كل ملك kitaabati indallah

dëkk bi ñu ñëw teeru la ñu gan gi ndax gan gi ganu ñëpp la te wax dëgg yàlla gan la goo xam ne si képp ku nekk ci dëkk bi rek war ngaa mën a ñëw teeral loo ko ndax taw feex la ci ñun mu déplacé wu ba ñëw fii ba Argentine fekk suñ ñun loolu suñu mbégte la wax dëgg yàlla ñi ngi gën a dëgëraalatal suñu toogaay fii ci Argentine ndax kilifa yu toll nii bu ñëwee dina seet si rek sa xel war naa dal kon nag ñi ngi ñaan fu waay mën a nekk ak loo jàpp nga fas yéene ñëw bu 3 heures jotee ci hôtel Baol ñu fas yéene koo gana ganale teral ko ci ngir jëmbi sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom lañ yaakaar ndax bu ko neexoon toog Sénégal ñu fekk ko fa lu mu soxla woo ñu fekk ko fa kon tey bu ñëwee fekk suñu taw la ci ñun kon ñu ngi seet soññi mbooleem julli foo waaye mën a nekk ci ndigalu sëñ Yankoba ak mbooleem waa fédération bi yëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu